ndax fi nga dugg ñun xamuñu ca dara fekk c'est une façon de parler waaw mënuma gëj ci yéen daaw ba dellu si ren di leen wax ay kasaaba kasa waaw dama leen di mën a wax rekk laboratoire ba ma nekkoon laboratoire ba liggéey naa fa lu nga xam ne tey amatuma jot nit naan ma dama am problème sàngam ma naan ko kaay ma bindal la xaatim sàngam dañ koy dépassé boo demee bouteille yaa nga fa bouteille bu ci nekk ak la ko tax a jóg ñu numéroté ko waaw ku ruuxam feebar ku xelam feebar ku xolam feebar ku yaramam feebar ku ñu laal ci wàllu sexar ku ñu laal ci leneen ak leneen ak leneen la nga foog ni xëy na xañ na yàlla def na ci ndigalam bu jotee nga waslu ca àq rek waaye du tax nga dogu waaw ndax yëfu jaamur la waaw moo tax nag dama wax mbokk mi ku nekk ak la nga tollool waaye xam nga ni kii toog ñu ni ko basin mimara liif laam adam dellu miim del bàyyee kook loolu rekk ndax loolu la tollool waaw am na keneen ku tolloog leneen waaw te mooy jëmmi basin mi mara waaw kin xamul lu ñu doon xoolal yonent bi ci li ngeen jàng ci seen tey salli ala saajidin qabla alwara faala bi sabci miati aamin rabbi allahu yonent bi am na juróom ñaari téeméeri at mais ban at at yi du sunu at yi di sujootal sunu borom moo tax ma ne jullit yi nañu am fayda bu ëllëgee yàlla bëgg leen a lakk rek ñu ne ko waaw li yonent bi doon sujjóot kon ñu teg ko fan waxin la waaw pour wax la degré sujjóot ba boo déchiffré baatu sujjóot bi 313 la lay jox keroog bi yonent bi war a dajeek waa Makka ci gazwatu badrin sujud boobu moo jël la responsabilité pour renfort bi yonent bi soxla mu indil ko ko te mooy 313 waaw koo xam ni sa benn sujud mën a contribuer à ce indi trois cent treize soldats fekk armée yu nga xam ne lu ne lañu ñu am ñu ñëw écraser leen ci benn sujjóot mu tax jullit yi bari na lu ñuy tawat fekk li ñuy def moo matul mu dellu ci li ma leen wax ci al amaana al kulliya ak al amaana al juziya waaw yenn yi ñoo nekkul benn waaw ku ci nekk ak sa yenn na mu toll waaw moo tax nag toujours al quran yi ko nit di jëriñoo dafa bare ndax boo gisee Seydina Cheikh di tudd markazul fuhumi wal maani ci biir jawharatul kamal fuhum yooyu ak maani yooyu kenn xamul nu mu toll parce que bu ci nekk ak li mu la mën a diriger nga dem ci wa nuuril akwaani al mutakawina al aadami saaxibi al xaq rabbaani البرق الأسطع بمزون الأرباح المالية لكل متعرض من البحور والأواني xoolal loolu boo koy jàng boxoor yooyu ñu tudd ci biir jawhara te li muy bare bare bare bare ñun benn lañ ñu ci saraxagum ñu di ko tudde xisbul baxar nga xool ne xisbul baxar li alquran boole yëpp yëpp yëpp ñu war ko jariñoo tënk nañ ko ci xisbul baxar waaw bismillahi na tabaraka xiitaanuna ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حي ميم عين سين قاف حمايتنا كنك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم واو واو xam nga ku jàng loola ba noppi am lu la déranger ti dangay war a seetaat sa bopp moo tax mën naa comprendre sax li xew sànq ba tey ñu naan micro yi dafa am problème parce que wax nañ ma ni ma appareil bi yoroon micro yi moom la courant bi lakk et du du hasard du hasard fan yii yëpp ñu ngi essayer pour lakk sunu appareil yi te xam naa na mu demee waaye comme yàllaa ngi def sutura ñu ngi waxtaan mais ñu sant yàlla du dëgg ba tax na gis nga xisbul baxri boobu mim yi ko composé yëpp ay serrure la mais séeréer bu ci ne ak côte bi koy war a ubbi ci xisbul baxra man bi ma ci yore sunu maam aadama moo ma ko offrir moo tax ki ñu ko yónni pour mu indi ko jox ma ko daf ma ko jox ba noppi quarante rek ma wuy ji boroomu waaw moo tax am na ñoo xam da leen di yërëm ndax heureusement bi nga xamee ni li ñu yàlla di dénk sañu ñu mer rek di ko jëfandikoo ndax lu ci nekk foog nga demander autorisation pour soog koo jëfandikoo mais ko xamul xamul xam nga sëriñ Cheikh daf ñuy nettali bés boobu sëriñ Babacar a ngi feebar tëdd di bëgg wuy ji boroomam góor gi alaaji Amadou Dem bi jur Sofi Dem muy sunu waajur ñëw seet si sëriñ Babacar ñëw tase fa ak sëriñ Bachiru Mbakke tase ak sëriñ Jaamal